mbikum américain bi ñu reyoon Medina bàyyi teg nañu loxo ñaar ñu ñu jàpp na ñoo ko rey libération moo ñu ko xamal Mohamed Cissé américain ba ñu fekkoon këram jël xalalam ba pare faat ko gaañ papam takk deri teg nañu loxo ñaar ñoo xam ne ñeneen seen loxo nga ci biir ñaar ña ñu jàpp sax kenn ka yéen a kaay bi ne sikki nekkul ci bokk na ca ña ko rey ndax fa am ay preuve firnde yu wër ci ay matériel enquête ba mu ngay wéyandi waaye ñaar ñi jàpp nañ leen ñeneen ñu ñu jàpp di fanweer ak benn ndaw ne ñooy ñi nga xam xam ñoo jiite woon fitna jaamoon ca diiwaanu ndar lakk yaag taxal yaag rajaxema le quotidien yéen a kaay ne waaye li ñu ci jaaxal ñeent rek ñoo cay ay mool waaye ñu des yëpp ay elaw la ñu ak leneen vox populi dëggal ko na ko xam na ca elaw buy jàng cinquième lay def lycée Pétavin am na ca marchand ambulant apprenti ak ñeneen seen avocat nag nee na ñii daal takk der yi fa ñoo dajeek ñoom ci mbedd yi rek ramassé jàpp yóbbu waaye seen yoon nekku ci ay mool ñoo doon dox ñaxtu kay bu ñu jàpp ñu jàpp mool ya ña ñu war a jàpp dëgg nag moo ñuy fitnaal wiole xale yi tu tànk yi laas yéen a ñu xamal ne lu ëpp junne ñaat téeméeru xale fitnaal nañu leen ca diwaanu Pikine nay leer leneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na oto yi accident yi ci réew mi buñ ci waxu danañ jeexal askan wi de a yaaw seetal juróom benn téeméeri doomu aadama faatu nañ ci kaw tali bi lu jege juróom-ñaari junne ci ay accident nguur gi ñàkk ci juróom-ñaar fukki milliards ñiy assuré oto yi ñàkk ci fukki milliards ak ñett si du quotidien na lii garaaw na de te oto yi bon yi nag ñooy andi accident yi nay leer la leer nañ ni jant tusubaar mooy ne diiwaanu cees boo moytu danañ dem ba ndox dutu fa xamati a yaw seetal këru liggéeykaay entreprise yee jëfandikoo ndox maa carrière ñoo ko nar a jeexal de ba tax Serigne Mbaye Thiam jëwriñ ji dénk wàll wi di dalal xel ya vox populi moo ñu ko xamal li mu ñu xamal moom turbine yéen a kaay mooy li tax courant bi yokk Sénégal Thierno Alassane Sall wax na ko banque mondiale ñoo ko sant Sénégal ngir mën koo lebal lu toll ci téeméer ak juróom-ñaari milliards yu toftal juróom benn téeméeri million enquête yéen a kaay na yu bëri Sénégal ñu ngi dàq seen liggéeykat yi ñu ngay tëj ndax nguur nguur gi moo leen yoral bor bu dul xaj du jeex lu ëpp téeméeri milliards lañ war e, ji nag réew mi nekk ci jafe-jafe ki ko jiite ngi topp àdduna bi rek di tukki di wër rek ngir yàlla Macky na ñibbi si réew mi ngi ci ay jafe-jafe yu dul xaj du jeex na ñëw lijjanti ko moo gën source ay yéen a kaay ne Macky mu toll a yow seetal lu xew ci àdduna mu dugg avion diggante mars jëm yàlla tey ji tukki na fi lépp fanweeri yoon te li ci garaaw mooy yenn tukki yi ñàkk ñàkk fayda yoo xam ne amulul njëriñ sax Sénégal moom lay Macky di tukki Le Soleil yéen kaay mel ni ku tontu na ko yaa ñeme yàlla Macky li muy tukki amulul njëriñ réew mi waaye kaay ma woon la firnde yi ma la ci réew Émirats arabes unis signé na fa juróom benn accord ak naar yi ñu dimbale Sénégal ci wàllu financement xaalis wàllu njànga njàngale tàggat ndaw ñi financé leen xeex wàllu terrorisme kaaraanga gi militaire léegi yow ngay wax lan loolu amul njëriñ critique yéen a kaay na leen ma hàtte leen Macky am na leen lu war a lijjanti sénégalais a Chine bëgguñu dara lu ma ñib si ci réew mi les écu yi ne kaay na Guy Marius Sagna liberté provisoire ba mu sàkk woon àttekat ya bañ nañ ayaw seetal nee nañ fa ñuy bañ buñ ko bàyyi li ñu defoon mu defaat ko wala mu jaxase yëngal réew mi li yëngaloon réew mi ci ay jamono mooy mbiru 94 milliards yu Ousmane Sonko ya tey nag xam na lu bees lu ñu l'observateur wax ci yëf yi yéen kaay bi nee na xam nga li ñu wax classé maanaam yëf yi plainte bi nga xam ne Sonko plainte na ko Mamour Diallo ak Tahirou Sarr du mujj fenn fa ñuy xotti plainte ba jël ko denc kenn dootu ci waxati ndax procureur ci boppam ba si Gueye moo sàkku ci àttekat yi na leen gis ngeen plainte yooyu bu leen faala sax Sonko teg leen ko fële bu leen ci wax dara ndax moom bu fekkee lii mu def di plainte ñoo xam ne seen yoon nekku ci la nga leen di plainte bu ko sénégalais yëpp defoon ko réew mi fay jaxasoo ak nam defee plainte ba daraa ca jaarut yoon tàggat yaram Barça ak Real fori nañu new mbuqi nañu leen toog nañu ca coupe du roi ba stade yéen a ñu ko xamal li mu ñu xamal moom sunu lamb yéen a kaay mooy ne Modou Lo combat am ak Eumeu Sène ginnaaw bu mu ko mbuqee ba léegi gaañu ñu ngi ko yoral ñaar fukki million ak juróom luñ ko desaloon war ko ko fay ba léegi joxuñ ko ko jox leen li l'observateur xëy xamal seetlu mooy soxna yi nga xam ne fa ñoo jàng ba yey këyit wala soxna yi ñuy wax ay intellectuel nga xam ne fi mu toll nii fa ñuy wujje maanaam bokkaate seen jëkkër yi bu ko ñuy nangoo xam na tamit ñeneen ñoo xam ne nangoo wuñ wujjee boo leen di takk rek ñu ne la nañ signé man ak yow rek doo takk keneen waaye ku ci wóolu sa bopp da nga ko nangu donte ñu bëri si ñoom nag ne na ñàkk pexe moo leen ci dugal waa ma ne ragal wujje ñàkk mën sa boor rek intellectuel ak ku dul intellectuel wujj lu baax la donte soxna yu bari boo leen ko waxee seen fit wa naaw waaye comme jigéen ñee ëpp góor ñi ñun góor ñi buñ takkul ay jabar léegi yeneen soxna yi fu ñuy jële jëkkër yeneen soxna